préserver ko ba pare travailleur boobu am sañ-sañ wax li nga xam ne moom lay yóotu moom la bëgg moom la bañ loolu lépp ñu ngi koy liggéey progressé ci bu baax a baax contrat yi ma la limal sànq yooyu si champ formel bi lañ koy def mën nañ ne yooyu bokk na ci xàllu liggéey yooyu doyul nag eggagul fi mu kii élage booy seetlu li ma la waxoon le désir du mieux est un fait humain kon amul fooy tollu ne léegi absolu idéal yootu na ko gis nga jéego boo seqee rek di nga bëgg teg ci leneen. mais monsieur le ministre juróom-ñetti at a ngi nii yéen a ngi nguur gi tey bu ngeen di lim ay xëy naan defarkatu volontaire ak katu bunt euh, c'est compliqué. Euh, waxum yow laa la wax yow yaay waxee noonu waaye mënoon naa la wax ay ingénieur yoo xam ne ñooy tabax ay lu ñu naan TER mën naa la ne autoroute taxaw na fi nga gis ko mën naa la ne ay bâtiment intelligent la ñu def ci réew mi loolu lépp mu ngi fi euh, damay ne rek amul liggéey boo xam ne jar na xeeb. amul liggéey boo xam ne amul sol loolu tam mooy indi problème suñu réew bu fekkee ne jàpp nañ ne am na liggéey yoo xam ne jaarul yoon ñu xeeb lu mel ni tabax xeeb lu mel ni euh, métier yoo xam day tax nga defal ay meuble ak yooyu ñu xeeb ko ñu bëgg nag développer suñu réew naka lañ koy defee il faut ñu am ci champs yooyu secteurs yooyu ay gone yoo xam ne dañ leen di tàggat ba ñu mën ñu am ñu qualifier leen ñu professionnaliser leen ñuy def parce que loolu moom mooy yor réew moo koy yóbbu si kanam Mhm. gone yi euh, bànqaas yi ngeen sanc am na bànqaas yu ngeen fi fekkoon yeneen nguur defoon ko fi yéen ngeen ñoo dolli ci ne xëyum ndaw ñee leen tax a jóg ba tey ñu toll fii buñ la nanguloo sax sa 14 pour cent ak nangam yi nga xam ne moom la ñu moom ngeen xayma ni mooy wàllu chômage ci Sénégal. 16 pour cent waaw 16. xam nga loolu bëri na ak li ngeen fi coow yëpp pëndal ko fuural ko ñu toll ci xayma googu moo lay wan ni li Ndiogou wax sànq moom laay bamtu wàllum xëy. Macky Sall ak yéen da ngeen cee xalangu. Euh, xam nga nit ku nekk mën nga ko bàyyee ni mu bëgg gisee mu gisee ko c'est aussi ça la liberté d'appréciation euh, ñu ngi ci réew mi ñu ngi ci dëkk bi ñu ngi ci àddina bi nekkoon nañu fi démb ak barke démb xam nañu fi ñu jógee xam nañu jéego yi nga xam ne seq nañ ko c'est avec beaucoup de fierté que ñuy wax ne egg nañ ci score boobu créé nañu loolu am nañ tam gisin fi ñu jëm li ci des nag mooy ku nekk si ñun. li nga xam ne am na am na noo koy jàngate xam nga mbiru chômage bi ñuy waxtaanee ci réew mi lan la indi ci man ci xalaat mooy dans le fond ku nekk li nga bëgg a dégg rek ngay dégg. am na ñoo xam ne mën nga sax bañ a dégg lu ñuy wax mais a priori tu sais bien que voilà seen appréciation moo tax ñu dégg tëll rek ñu engouffré wu ne ah Sénégal troisième pays au monde bi nga xam ne taux chômage moo gën a rëy et cetera mu am une de jubilation boo xam ne man daf may poser problème ndax foo mënta nekk foo mënta far li ñu war a boole ñun yëpp mooy bëgg suñu réew bëgg suñu réew nag. mooy bëgg ndamam mais am na ñoo xam ne bu ñuy football dañuy bëgg ñu laaj ndax lan ñu am argument bu ñu béyee dañuy bëgg li ñuy récolter mu tuuti ñu am argument bu ñu wax taux de chômage dañuy bëgg ñu laaj comme ça ñu am argument man nag loolu daf may xaw a jaaxal defe naa ne war nañu au moins fédéré autour de notre et des est tamit am taux de bu élevé tamit gàcce la ndaxte loolu tamit réew yëpp lay am États-Unis réew yëpp dool ci àdduna bi taux de bi daal dina jéggi dayo kon est-ce que lu ciy gàcce ba nga xamante ne ngeen taxaw bañ rapport bi lan la lu ciy gàcce. non du question dañu bañ rapport bi dafa amut. jusqu'à plus ample informé pour des chômeurs mooy encore une fois une personne âgée de plus de quinze ans en capacité de travailler cherchant à travailler le répète ëpp na pour ñun suñu ambition mooy réduire ko ci strict minimum nga wax nga war na sànq ne nga fu nekk la am waaye bokkuma ci moo gën du man rek ñu ngi liggéey dans la lucidité dans la conscience la teneur des problèmes de leur acuité de leur sérieux te xam ne ñu ngi ciy seqi ay jéego donc dañuy jéem rek rétablir les faits li ci des nag amul solo. Mmh. conseil présidentiel bi jëm ci suqali koom-koom Sénégal te Macky jiite woon ko ca jam ñaaju fan yi euh, junj na fa wàllu maanaam signé contrat embauchement ak ñoom seen euh, ñi nga xam ne ñooy dugal seen xaalis ci réew mi di jóge bitim réew rawat na dañoo bëggoon ñu gën leen a yombalal yëf yi bañ rek par force nga ñëw di signé ay CDI contrat à durée indéterminée yeesal kooku lu ñu bëgg indi ci code du travail est-ce que loolu la soxal maanaam dàq liggéeykat gën gaaw ñu bañ di signé ay CDI par la force est-ce que yeesal gi loolu la am déet. yeesal bi ñuy namm ci suñu réew mooy code du travail boo xam ne dina gën a ubbi ay bunt pour euh, ñi bëgg a samp libéré bu liggéeykaay samp ko ñi bëgg a liggéey am fu ñu liggéey am na ay gisin yu xaw a wute ci mbir moomu naka la ñuy fexe ba daje ci ki am koomam di bëgg samp am na nu mu ko gisee ki nga xam ne moo fi nekk di taxawal liggéey liggéeykat yi am na nu mu ko gisee lan mooy chance Sénégal mooy promotion du dialogue social ñi xëyle ñi xëy nguur gi dañuy toog waxtaan parce que ñun bëgg nañu législation du travail bu adapté li ñu bëgg mooy beesalaat ndax am na ay ponk yoo xam législation du travail euh, maanaam jëlu ko en charge liñ ci yee mooy pandémie par exemple liggéey bi nga yeesal bi day yombal licenciement dàq. si dàq encore une fois dàq kiy liggéey dafa am ay sañ-sañ. dafa am ay yeneen du rek benn maanaam bantubale boo xam ne da nga koy mën a déplacer à tempérament. moo tax dañuy protéger liggéeykat bi di protéger en même temps entreprise bi digg si diggante ñaar yooyu am na benn diggu doomu boo xam ne moom la ñu. ngeen fas yeesal dëgg-dëgg ci tënk ñaari baat. li ñu fas yéene mooy am code millions aujourd'hui li naa ko sànq nee am na yu bëree bëri yoo xam ne pandémie bi sax moo ñu ci yee chômage technique par exemple waxuñ ci lu doy il a fallu ajuster ci biir pandémie bi euh, maanaam rapport bi ñu am ak travail euh, bi nga xam ne war na ko mën def ci numérique bi amuñ ci dara loo xam ne wax nañ ko euh, ak yeneen yu mel noonu ndaw ñu jigéen ñi maanaam pàcc ak place bi ñu leen war a jox si biir liggéey bi ak ni leen war a aaree am na ay ndaw yi pas yooyu xam ne bëgg nañ ko dañoo bëgg a leeralaat laaj bi ñu dellusiwaat ci baamtu ko ndax am na solo est-ce que yeesal bi ngeen bëgg indi ci code du travail di sart bi tëral wàllu liggéey ci réew mi da ngeen cee bëgg a dindi embauchement par force. yeesal bi ngeen bëgg indi ci code du travail di charte bi tëral wàllu liggéey ci réew mi euh, li ñu bëgg da ngeen cee bëgg a dindi mooy fexe ba xëy bi gën a yaatu gën a law. embauchement par force euh, lu mu tekki mooy est-ce que bu fekkente ne nit ki euh, maanaam xëyloo nga ko tey xëyloo nga ko suba gannaaw suba da nga koy jël euh, maanaam automatiquement fekkee ne loolu la tekki loolu lépp ay waxtaan lay doon. xam nga fii euh, waaw est-ce que loolu da koy dindi. Euh, li a def ça résultera encore une fois des consultations que nous maanaam du sàmm si du travail mooy toog mbala patronat mooy toog mbala liggéeykat yi ñooy toog ñooy waxtaan ndax loolu la nga xam ne suñu euh, doxalin ci traitement code du travail noonu la mës a demee waxtaan daje ci dara yem ko wéer. est-ce xam ngeen ni mën naa yëngal doxalin dëkk bi euh, dëkk bi bu si yàlla àndee du yëngu ndax ay borom euh, xel ñoo fi nekk xam am sens de responsabilité ñuy ndamoo am patronat ak maanaam organisation syndicale yoo xam ne wax yàlla nga ci ngaalama. ñu wax wàllum politique yaay secrétaire PIT temps yi coow li am mooy coowal Aliou Dembourou Sow euh, bokk ci APR di député nekk président conseil départemental bu Ranérou yëkkati kàddu ne ñetteelu mandat Pag ku ko bañ mu wax xeetam ñu daal jël ngànnaay ngi dal sa kaw yow euh, noo gisee moom en tant que ku bokk ci Benno Bokk Yaakaar. boppam génne na xët wax ci euh, parti bi nga xam ne foofu la député Sow bokk génne ci euh, xët wax ci euh, li ci des nag mooy naka la ñuy taxawee ba di wax sax biiru xeet ci Sénégal El man loolu bu ñu ko waxee daf may xaw a jaaxal. ku mel ni man ku mel ni yow ndax xaw naa la xam ci ban xeet la ñu bokk ñenn ñi si ñun a ah, defe naa ne amul fépp foo xam ne a yuñ fa donc xeet moom wax dëgg yàlla weesu nañ ko kenn waru ko c'est que ah, nguur ba léegi da di sëgg rek di dem euh, loolu tam encore une fois ma respecté ce point de vue euh, waaye nag bu fekkee da bëgg xëyloo waa PIT ñu def li nga xam ne Babacar Fall bëgg nañu def ko euh, loolu day duloo ko gaawaam suñuy position suñuy doxalin suñuy militants ñoo koy déterminer ñun ak président Macky Sall ak ñu def li nga xam ne ñun ñoo ko arrêté décidé ko. nay métti rek waaye léegi daal cell rek. non pas nay métti rek li ñu yëkki ma suñu ñu ma tey jii mooy fexe ba nga xam ne suñu askan mu ngi koy jàkkaarloo ñu saafara ko dafay yu considérable nga xam ne nag bëgg nañu de manière réactionnaire delloo ñu si gannaaw indiwaat ñu ci nga xam ne weesu

octobre deux mille dix neuf amiin amiin waaye est ce que di ban moo nar a nekk contexte waxtu woowu jotee. bu soobee yàlla ni ñu defee nañu daje. ban moo nar a nekk ndax troisième mandat euh, président Macky Sall nang ngeen samp na lamp bu fekkee ne yàlla yóbbu nañ ñu egg 2024 dañuy apprécier évaluer jël une position indiquer une voie mën na am une voie boo xam ne ñu bari dañ naan est-ce que noonu la mais bu soobee yàlla ni ko mu doon demee ñëpp dañu xam ne yoon wi boobu la. comment peut-on comment peut-on après avoir conquis le pouvoir en une année. commencé naan déjà prochaine campagne ça veut dire que ci la demee. gars yi dañuy léegi ci ci sa liggéeyu ministre du travail am na mbootaayu syndicat bu ñu wax. ci ñu ngi xultu rek ay lettre ñu lay bind doo tontu ay audience ñu lay ñaan doo leen ko may subvention ci fête du travail ñaari at a ngi ne jotuñ ci looy tontu ci loolu. Euh, c'est dommage que ñooñu nekkuñu fi waaye xam nga réew mi dafa réyul trop man Samba si ku ma xam waxuma ministre du travail naan ma woo naa la uyu ma bind naa la tontu woo ma danga may soofantal di dama ignoré boo ko waxee ñi koy weddi bari nañu ndamawu ma mais sama numéro téléphone bi ma amoon y'a vingt ans de sax moom laa yor l'une des preuves bu may joxe ki nekk fii seen kër gi moo ko ki fëral téléphone bi bu may joxe ki nekk fii seen kër gi moo ko ki fëral téléphone bi ma woo de pour ñu am jotaay bi tey xàmmeewu ma ko cest à dama gis téléphone ma répondre mu ne man la diw. di nga leen dalal am déet seen TSFC donc ignorer toiser xeeb loolu des may ensuite euh, yenn yi ci bëri itam gëstu tuuti rek moo koy wane. lenn de laa xam ne mënu ko mooy lan mooy yoon bu demee ba ne lii laa dogal pour ma teg ci sama tànk day jafe. parce que bu ko defee damay jéggi yoon. est-ce que di nga recevoir CNTS/FC ak ñeneen la bëgg a gis. ku dul cnts sax cnts nga xam ne kuréelu liggéeykat lañu. seen citoyen sénégalais boo xam ne bëgg na ma gis dama koy recevoir massa nag euh, kuréelu liggéeykat. jërëjëf monsieur le ministre du travail Samba Sy ministre du travail ak de relations avec les institutions et du dialogue social yendoog jàmm.